أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu borom ma ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi ñoo ngi ba tey suratu nisa bi iznillahi tabaraka wa taala ñuy jël tey ñeenti aaya 144 145 146 147 ñeenti aaya yi dañu ñu ما زال سياق الآيات في إرشاد الله تعالى المؤمنين إلى ما يعزهم ويكملهم ويسعدهم sunu borom subhanahu wa taala ci aaya yi dañul di joxe ay orientation di orienté jullit yi ci loo xam ne daf leen di teddal waaye daf leen di matal waaye daf leen di texeloo loolu moo tax sax boo xoolee aaya yi da ngay gis yunaadihimullahu taala bi unwaanul iman yàllaa ngi leen di adressé baatu ngëm te mooy yaa ayyuha allazina amanu baat yooyu la leen yàlla woowee wa huwa ruuhu allazi bihi alxayaa ngëm moo tax dund am mooy ruux gi nga xam ne moo yenu dund jullit mbokk yi kuy kuy dund te gëmoo yàlla tekki woo dara ci kaw suuf képp ku amul ngëm ku gëmul yàlla mooy kan mooy koo xam ne xamoo li tax yàlla bind la xamoo li tax yàlla indi la fi moo tax doo tekki dara doo peese dara kañ la àddina di am importance kañ la dund di am njëriñ mooy doomu aadama bu amee ngëm te ngëm googu su ko amee ngëm gi moo koy wax lan lay def ci kaw suuf waaye su amul ngëm dundam dafay sànku looloo tax da ngay gis dëkk bi nit ñi ni ñu mel nga mën a ràññee ñi am gëm ñi gëm ak ñi gëmut mbooloo yi ni ñu mel nga mën a ràññee ñi gëm ak ñi gëmut ñu mag ñeeg ñu ndaw ñi góor ak jigéen loola tax mbokk yi ñu ne al iman wa huwa ruuhul xayaa ngëm mooy ruuxu dund soo déggee dund am na njëriñ rek dafa fekk ñey dund dañoo am ngëm ngëm nekk soo doon joxe misaal ci yaramu nit kañ la ñuy tuddee nit nit kañ lañ ko koy tuddee su fekkee mu ngi dund pourtant yaram bi dafiy nekk bopp baa ngi nii bët yaa ngi nii nopp yaa ngi nii tànk yaa ngi nii mais ruux rek moo ci dañ mu daal di changé léegi nuñ koy woowee néew ndax waxuñu ana nit ki waa ji dégg nga ci fajar ñu ne dee na nga dugg oto ñëw bi nga ñëw ba wàcc bu kër gi da nga naan ana nit ki wala ana néew bi looy laajte ana néew bi wala ana koor bi lu tax waxoo ana waay ana sama gaayen bi ana diw la waxoo loolu parce que ruux nekkatul ci yaram bi mbokk yi noonu la ngëm mel nit su amul ngëm dundatul moo tax dégg ngeen yonante ba muy joxe misaal masalu lazi yazkuru rabbahu wallazi la yazkuru rabbahu ka masalil ka masalil xayyi wal mayit misaalu kii sàbbal boroomam ki xam boroomam di ko tudd guddeeg bëccëg nekk ci boroomam misaal bi mooy mi ngi mel ne ku dund ak ku dee loolu moo tax ngëm dafa am importance ci dund doomu aadama li nit ñi di fawe tey mooy ñàkk ngëm nit ñi seytaane jekku leen conférence laa jóge léegi Medina léegi nii lii thème baa ngi nekkoon ci yoon yi nga xam ne ci la seytaane di jaar di noggatu jaam ñi yoon yi seytaane di jaar di réeral jaam ñi waaye da nga ciy fekk ñàkk ngëm def cee bokk ci yoon yooyu kon al imaanu huwa ar ruux allazi bihi al xayaa ngëm mooy ruux bi nga xam ne ci la dund amee waaye wa yanha an ittixisa an itixaasi alkaafirina awliya min duni almuminin ci aaya yi nekk sunu kanam ba tey borom baa ngi tere ñun ñi gëm yàlla ñu jël yéeféer yi def leen ay xarit ñun ñi gëm yàlla ñoo am ay xaritu kàccoor ay xaritu yéeféer ay xaritu góor jigéen ay xaritu ay xaritu ku gëm yàlla doo xaritoog lu dul ku gëm yàlla ku gëm yàlla warul am xaritu yéeféer rawatina nag ñu def leen péete péete boo xam ne ittixasaahum awliya jël leen ñu nekk suñuy farandoo ma waddatuhum di leen bëgg wa munasaratuhum di dimbalante ak ñoom wasiqatu fiim am ci ñoom confiance xoolal fi mu nekk nii am na ci ñun ñoo xam ne information li leen France Inter wax kii waxul France 24 waxul du dëgg maa ko déglu France 24 ñan ñoo lay jox information boobu ay yéeféer maa ko seetaan CNN ñan ñoo moom information boobu ay yahud ay yéeféer ñoo lay jox ay information ah ci say mbokki jullit nga koy gëm ñaata at bi ñu déggee ñu ne américains yi dem nañ ci kaw asamaan yi ak léegi ñaata at la yéen ñu jàng tubaab bi ñu déggee ñu ne américains yi dem nañ ba kaw asamaan ñaata at la ak léegi ah man na cinquante ans xoolal ni ko nit ñi weddee léegi ndax bi ñu demee foofu drapeau ba ñu fa samp lan moo tax boroom xam-xam yi léegi ne ñoom demuñu woon parce que drapeau ban fa samp da doon folote gars yi léegi nee nañ foofu amul amul ngelaw kenn waru fa def drapeau xoolal loolu buñ ñu ko gëmloowee def seeni montage indil ñu ay drapeau yu folote taf taf taf taf ñu samp ko fépp ci kaw asamaan si ñu ne ñu dem nañ kaw asamaan fekk passé wu ñu géejawaay gee loolu moo tax kon ndeke ñun jullit ñi dañoo war a teey ànd ak suñuy mbokki jullit waaye xoolal ni tubaab yi yàqee tey diggante jullit ñi ba jullit ñi wóolante wuñ gëmante wuñ wala Sénégal ñaata lañ 95 pour cent waaye xoole ni ñu leen pàccee ni ñu leen defee ay ay kër murit tijaan xaadir laayeen canaba Medina Gunaas ñeseen ibaadu falaa ah taaleen cantakun frère musulman chia ñëpp am nañ fi indi leen turi ñii may wax ñëpp am nañ fi ah njaasaan yàlla yàlla waxal rek wax tur boo wax rek waxal ba pare xam nga lu garaaw ci ñooñu niñ leen tàqalee ci tur yi lañ leen tàqalee sax ba ci baatu laa ilaha illallah bi bokkatuñ ko ba ci mbax ne yi sax bokkuñ ko mbax ne soo gisee mbax ne bi nga ne mbax ne bi mbax ne bi ba ci laa ilaha illallah yi léegi léegi mën ngaa toog fi ngay indi ay laa ilaha illallah yoo xam ne laa ilaha illallah bu nekk ak kër jàmbur la ba pare mënuñu fexe ba julli ñooñu ànd ànd ànd nii nekk benn kenn mënu ko waxuma àdduna bi de ci sunu réew mii laa wax nu nekk jullit yi fi nekk mënunoo fexe ba ànd fi mu nekk nii boo woote woon léegi kaa leen dem fee nga gis ku ne jumaa ji di jumaa yi baatu xaaral ma dem ba fële ci kanam man boobu laay jullee boobu mooy sunu jumaa ku moom jumaa yi loolu mooy sunu problème yéeféer yi fexe nañ yàlla dana la woon ñoom bu ñu leen topp bu ñu nekk suñuy mbokk bu ñu nekk suñuy xarit waaye ñun ñu toppi leen ba pare suñu biir kenn gëmatul moroomam kenn jul nekkatul jullit jullit ak jullit mënuñoo wax mënuñoo déggoo mënoo am confiance ci jullit loolu fan lañ jëm mbokk yi kon sunu borom subhanahu wa taala dafa ne jullit bu mu jël yéeféer daf ko soppe bëggante ak moom di dimbalante ak ñoom am confiance ci moom waaye war rukunu ilayhim jeng dem ci ñoom ba ñu xam ne yow dëgg dëgg dëgg ñii nga fi nekkal wa taawun maahum di dimbalante ak ñoom walamma kaana al amru za xutura kaamila alayhim haddadahum mbir mi dafa am danger loolu moo tax yàlla sëpp tëkku ñi bàyyi seen i mbokk julit dem ci yéeféer yi farak ñoom yàlla def leen a tëkku yowmal xiyaamati dina leen mbugal ala al adduna bi mbugal leen alaxira beneen bi ñu ci war a jàng mooy ba tey yàlla mu ñuy leeralal melokaanu naafiq yi naafiq nga xam ne tey loolu moo sonal islaam sunu borom di wax naafiq yi ëllëg yowmal xiyaamati lan la leen yàlla di fay fan la leen yàlla di dugal loolu tamit sunu borom subhanahu wa taala mu ngi koy leeralal ci aaya yi nekk sunu kanam waaye li bàkkaar yooyu di rëy jéng dem ci yéeféer yi def leen xarit nekk naa fiq bàkkaar yooyu li yàlla di tëkku ba yàlla wax ne ëllëg yowmal qiyaam kal bi mujj ci safara kal bi mujj naa fiq yi laa fay dugal li muy rëy rëy rëy rëy yàlla nee na ñi def lii bu ñu tuubee balaa ñuy dee ma baal leen kon danañ jàng tey tamit mbokk yi njëriñu tuub tuub tuub loo xam ne nit ki daf ko war dëkki di tuub guddeeg bëccëg di dellu ci sa borom yonente bi alayhi salaatu salaam moo tax saxaaba yi nee nañ daan ko daan nañ ko konteel ci benn majlis bu mu toog subhanaka allahuma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka saxaaba yi nee nañ daan nañ konteel yonente bi muy wax ci benn place lépp juróom-ñaar fukki yoon rabbi xfir lana wa tub alayna innaka anta tawabul ghafur rabbi xfir lana wa tub alayna innaka anta tawabul ghafur benn place bu mu toog mu wax fa place bi lu ëpp juróom-ñaar fukki war saxaaba yi nee nañ di compter loolu ndax mu ngi tuub ay minutes ay waxtoom lépp di ko dellu ci yàlla tabaraka wa taala loolu tamit mbokk yi danañ ko jàng tey mooy ngëneelu tuub dellu ci yàlla waaye danañ jàng tamit ne yàlla amul benn intérêt ci mbugal nu ndax da ngeen yaakaar ne yàlla bu ne daf ñuy mbugal daf ñu ëpp doole rek di ñu mbugal moonu mën rek wala ah déedéet yàlla dafa bëggul ñu nekk ay yéefir yàlla dafa bëgg ñu nekk ay julit moo tax mu ñuy tëkku ne bu ngeen nekk ay yéefir ma duma leen parce que wala yarda li ibadihi al kufra yàlla bëggul ñu nekk yéefir mi ngi mel ne yow mi yor sa njaboot am nga loo bëgg ci ñoom am nga loo bañ ci ñoom wala yàlla ay jaamam la yor bëgg jaamam yi mel nii jaar nii mu ne leen bu ngeen melee nii lii laa leen di fay waaye bu ngeen bañee jaar foofu ah wa inna azabi la sadid dama mbugal nag lu tar la kon doomu ndey ci tënk bu gàtt lii mooy tey sunu dars noo ngi ñaan sunu borom jalla jalaaluhu yal na yàlla dëgëral sunu làmmiñ ba duñu génn texte yi ñuy wax أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في درك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما sunu borom nee na yaa ayuha alladina amanu ey yéen ñi gëm abdullahi ibnu masud nee na saa yoo déggee yaa ayuha alladina amanu mu ne taxawal daf lay digal wala mu tere la mooy feu rouge bu tàkk taxaw rek bul passé mukk yaa ayuha alladina amanu boo déggee ci alxuraan taxawal déglu dañ lay wax defal wala ñu ne la bàyyil cheikh aboubacar jabir al jazair bind na ci benn téere tudde ko nidaatu rahman aaya bi yëpp yaa yolle téere bi yëpp yaa yolle zina amanu la يا أيها الذين آمنوا يا حرف النداء لا. يا إيه إيه ساي دونك دغ ñu ne eh nooy def taxaw doo taxaw rek yem ci waaye da ngay gestu du dëgg ki la woo yàlla woote ñan la woo mu ne yéen ñi nga xam ne amanu ayyuha allazina amanu yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm ah kon wax ji am na ñu ñu dugal am na ñu ñu génne am na ñu ñu woo am na ñu ñu woowul am na ñu ñuy waxal am na ñu ñu waxalul wala ñan la yàlla woo ñi gëm ñan lay waxal ñi gëm fi mu leen di doyee mu ne ngalawaay sunu borom xoola rek mu ne ngalawaay laa tattaxisu bu leen jàpp alkaafirina yéefiir yi awliya def leen ay farandoo ay péete lii leer na wala leer ah yéen yor kaamil yi ñu traduire en français yi am na ko yor ci jàkka ji kaamil bu ñu traduire en français wala kenn indiwu ko tey moom nga yore lan la yàlla waxoo ci français ndax gars yi dégg nasaraan ñu dégg ko.
Pour les croyants, ne prenez pas pour allier les mécréants.
Hey, les mécréants Au lieu des croyants.
mu ngoog sunu borom daf ñu tere ñu jël ñoo xam ne gëmuñu yàlla daf leen ay alliés daf leen farandoo wallahi sunu borom doon na wax ne ku gëm yàlla ku gëm yàlla war a àndal yéeféer yéeféer la war mu ne bu ngeen ko deful rek musiba am ci kaw suuf loolu am tey musiba am ci kaw suuf jullit ñi bañ demee farag yéeféer yi rek fa la musiba amee waxuma sax tey ñu farag yéeféer yi waaye jullit ñi dañuy farag yéeféer yi di duma jullit yi voilà tey waa Daesh ñi ñu bombardé dañoo leen di bombardé ay jullit ak ay yéeféer wala gis nga gis nga te su fekkee dañu ne waaw jullit yooyu foog ñu bombardé leen déedéet yéeféer amul droit di bombardé jullit yàlla dana yéeféer yi jullit yi su fekkee ñooy xeex seen biir ñu ne leen régler leen toog leen toog leen ñu bañ tey jii fii ci biir jàkka ji soo amoon ñaari mbokk jullit yuy xeex ñu ñëw àtte ne leen toog leen yem leen kenn ki réglé kenn ki bañ a toog di bër di bër di fii rek lan lañ yàlla wax ci kooku di bër di bër di yàlla neen wa in taifatu wa in taifataani min al muminin aqtatalu fa aslihu li ngeen njëkk a def mooy toog leen ngeen toog mbokk yéen ragal leen yàlla yéen bu leen xeex yéen ay jullit ngeen yéen ay mbokk ngeen ah ay bàyyi leen waay toog leen waay kenn ki toog kenn ki lànk lan lañ yàlla wax ci loolu wa in baxat faqaatilu lati hatta tafia kon loolu la yàlla indi na solution mais solution bi du ñun jullit yi ñu ne jullit bi toogal mënuluñ ko dara ñu ne ko waaw kon sa affaire la yéeféer yi jóge fële di ko duma ñun ci sunu biir la yàlla wax ne su jullit ñi di xeex nañ leen jubale nañ waxtaan seen biir nañu waxtaan ak ñoom ba ñu déglu suñu lànkee yàlla nee na ñun jullit ñi nañ def coalition nañ jàpp jullit bi duma ko ba mu réglé ba mu xam waaye léegi ñun duñ def loolu dañuy dem woy yéeféer yi ne leen kaay leen ngeen du dimbali ñu ci jullit bi yéeféer yi ñëw di duma jullit boobu kon loolu yëpp jalgati ay yoon la loolu yëpp jalgati texte yàlla yi tabaraka wa taala la yàlla nee na laa tattaxisu bu leen jàpp alkaafirina yéeféer yi awliya def leen ay péete ay soppe min dunil muminina walis gëm jullit yi ngeen bàyyi jullit yi leen ko def aturi duna ndax yéen da ngeen a bëgg an tajaalu lillahi aleykum sultaana mubina da ngeen a bëgg a indil yàlla teg yàlla aturi duna da ngeen a nam an tajaalu ngeen def lillahi ci yàlla aleykum ci yéen sultaanan lay da ngeen a bëgg a may yàlla lay seen kaw lay woo xam ne mubiin xujja waadiha li taazibikum da ngeen a bëgg ëllëg bu leen yàlla jàppee di leen mbugal ci safara du ngeen am lay bu ngeen lay day fekk yàllaa leen yey yow yàlla lu tax nga ñuy dugal safara yàlla ne la waxoon naa la bul xaritoog yéefeer nga xaritoog moom amatoo lay wala am nga lay kon bu leen may yàlla seen kaw lay wum leen di yayee lim leen tere nag bàyyi leen ko su fekkee bëgg ngeen mu bañ leen a yay waaye bu fekkee da ngeen a lànk lam leen tere ngeen def ko kon yàlla am na ci yéen lay ëllëg dana leen mbugal dana leen dugal safara borom bi nee na innal munafiqina nafiqi ëllëg yowmal xiyaam waxoon nañ kan mooy nafiq ci aaya yi passé ndeysaan nafiq mooy ku feeñal ngëm nëbb ak kiifir borom xam-xam yi nee nañ nafiq boo dajeeg moom kanamu Aboubacar la layoon waaye xol bi xolu Abu Jahlin la nafiq kanam gi kanamu Aboubacarin Siddiq la yore waaye xol bi xolu Abu Jahlin la da ngay dajeeg moom salaamaaleykum nga woon ko ginnaaw mu ne kii kii jël na ko oto dër kii kii yal na deer fekk xol bi li mu denc yàlla moo ko wax ci alxuraan mu ne yauddu aleykum al anamil bu ngeen wanee ginnaaw rek ñu matt baara bi di ñii al nañ naafiq noonu la mel ndeysaan benn boroom xam-xam nee na bëñ weex na trop waaye lan moo ko lal deret bëñ ak a weex soo nee nii nit ñi li ñuy gis lu weex waaye lu nekk suuf lan la mutanabbi nee na iza ra'ayta lays iza ra'ayta yanuba lays barizatan fala tazunnanna fala tazannanna anna lays yabtasimu hmm mutanabbi moo way way boobu mu ne boo gisee gaynde a lays mooy gaynde iza ra'ayta yanuba lays barizatan boo gisee gaynde ay sellam ne nii eex mu ne nii bul dugal sa loxo nga ni gaynde day reetaan de yaa nga ne mos gaynde reetaanul wala mu ne bul yaakaar mukk bul dof mukk ba nga ñëw ne gaynde gaa ngi ree nga dugal ci sa loxo ndax xam nga ne gaynde du ree wala naafiq mel naafiq baaxul am nay melokaan naafiq am nañu ay melokaan ay sifaat yonent bi alayhi salaatu wasalaam am na lenn ci melokaan yi lu mu ñu wax ne ne naafiq yi noonu lañ mel ayatul munafiq ayatul munafiq salaasa iza hadasa wa iza waada wa iza tumuna wa fi riwaaya wa iza xaasama fajara yent bi nee na nafiq buñ bëggee xam mooy kan déglul ay waxtaanam rek day may day wax ba caag rek mu ne xaar leen ma maye bii waaye xaar leen ma maye moo tax nga dem ci yenn place ñu ne la mayel loolu booba ngeen mooy tandiku de xam nga am na télé boo xam ne bu ñu la invité bu waxtaan bi jeex dañ naan la mayel waxal man jullit laa du ma maye mayel mooy lanal mooy fenal nga an benn paa la woon te fekke woo ko xamoo ndax dëgg la dangaa fekk nit ñi ko wax gis nga nga fen loolu màndarga naafiq la iza haddasa kadaba saa yu waxtaanee fen mooy bul fen wa iza waada axlafa su la digee war la moo tax borom xam ne iza qulta naam fi daynin fa atimmahu fa inna naam daynun alal hurri waajib soo waxee waaw ah respecté li nga wax ndax waaw ci gorkat lu war la gor su waxee waaw waaw la fa inna naam daynun alal hurri waajib wa iza waada axlaf wa iza tumina xaana suñ ko wóoloo mu wor benn waaye wóolu la romb kër yëpp ñëw ba ci yow dénk la jox la génn rek nga woo sa soxna ne ko yónneel ma may ga ba yónneel ma brochette te yow dañ laa dénk ah wala ñu yónni la nga bañ a indi weccit damay sànni samay flèche nag tey ñi yónni la nga bañ a indi weccit nga denc weccit bi rënk ko dañ laa wóolu di way sa atumi na xaana yow ñu ngi la wóolu liñ la wóolu kay ki la wóolu bu la wóoloo ne la am soo demee ñëw noo war a def kon loolu baaxul mbokk yi loolu mandarga naa féq la ab jullit def loolu waaw wala waa ji jox la wax wax la la wax ne la nangam ak nangam ak na waa ji génn rek nga dajale dëkk bi waaw benn jigéen benn waaye da doon seet jabaram ñu ne ko sa jabar yi wó- dara wóorul ci moom li nga koy wax yëpp da koy waxee waat mu ne da ngeen di wax rek kii kay wóorul naa ko ñu ne baax na benn waaye ne ko dénk ko nen nga ne ko yaa ko nen mu daal di woo soxna si ba mu ñëw mu ne ko gis nga nen bii damaa bëgg nga dencal ma ko fu am sécurité ndax dama ko nen te sëriñ bi nee na bu nen bi tojee damay dee mu woo xaritam ne ko kaay xarit bi ñëw mu ne ko sama nijaay daa nen nen mu ngi nii nee naa ko dénk xarit boobu génn daal di nijaayu diw daa daa nen ñaari nen kooku génn daal ne ñetti nen kooku génn génn ne ñeenti nen kooku génn ne juróomi nen balaa ngoon waa ji nen na tablette tablette di affaire bi mën na tablette ba moom sax mu toog di xool ginnaawam naan waaw ndax man mu dégg dëkk bi di wax diw daa neen muy làmb boppam naan est ce que est ce que affaire bi mbaa du dëgg la ndax information bi nu mu bëree gis nga mooy li ñuy dégg tey ci dëkk bi ay rumeur yu dul jeex dangam nangam nang yenn saa yi da ngay dem ba defe ne loolu moo tax alxuraan nañu wa in jaakum faasaqin bi nabain fa tabayyanu kon loolu ay mandarga la yoo xam ne bokk ci beneen mandarga yi mooy wa isa xaasama fajara su xulóog yow ëppal tam la lu wax la lu amul dëmm nga ak nii nga mel ak caga nga ak góor jigéen nga ak fekk li muy wax dara amu ci dafay xumbal nii rek pour gars yi yuuxu xam nga ñaari nit bu ñuy xuloo da nga gis seytaane yi nekk ci digg yi bu kii waxee ñu ne "Ah!" kee wax ñu ne "Ah!" léegi nag ku nekk léegi boo toppee loolu mooy da ngaa bëgg a wax lu gën a neex fekk li ngay wax xam nga ne dara du ci dëgg loolu màndarga naafiq la ab jullit du ko def sunu borom ne innal munafiqina fi darkil asfali min annaar allahu akbar innal munafiqina naka nafiqi ëllëg yowmal xiyaam bu deewee yàlla dina leen dugal fii darki ak dark mooy kal kal bu mujj darkil asfal mooy kal bu mujj safara dafa am ay kal yàlla nee na nafiqi ci kal bu mujj bi laa leen dugal su doon cin bu ñu teg la ñu ne kal bu mujj bi mooy fan mooy xóoñ bi moo tax borom xam-xam yi naan la naafeq yi ñooy xóoñu safara ceeb boobu ñu dugal ci cin bi lan moo tax mu xóoñ ñoom ñoo wàcc ci suuf ñoom ñoo ñàkk sens bi ñu wàccee ci suuf safara si jàpp leen ñu xam sunu borom nee na ëllëg yawmal qiyaam naafeq yi foofu laa leen di dugal kon mbokk yi naafeq feebar la boo xam ne bu jara mooy tëndiku la te nag li garaaw mooy yombut a mucc de naafeq yombut a mucc mën ngay wax ndeke yow naafeq nga yonent bi alayhi salaatu salaam dafa xamaloon dafa jëloon liste naafeq yi mu jox ko benn saxaabu tudd Huzayfa mu ne Huzayfa ñii ñëpp ay naafeq lañ yàlla nee na bu ma génne seen tur yi ñu ngi nii nag Huzayfa la ko yonent bi joxoon Omar danaan tuumaal boppam naan man mbaa du naafiq la mbaa sama tur nekkul ci liste ba muy bàyyi bu guddi ba ñëpp di nelaw mu ñëw fëgg kër Huzayfa Huzayfa bu ubbee amirul muminin mbaa jàmm la ne Huzayfa dimbali ma ngir yàlla ci laa bokk wala bokk ma ci naafiq yi dimbali ma Huzayfa ne ko yonent bi dafa waxoon ne bu ma waxee seen tur allahu akbar su Umar tuumaalee boppam ne naafiq la kon ñun ñi toog fii nun war def ah su Umar tuumaalee boppam ne moom mbaa bokkul ci naafiq yi kon ñun lu ñu war def mbokk yi Uzayfa nan la Umar daan xamee ne naafiq bu dee ci Médine wala day bàyyi ba nit dee mu ñëw taxaw su gisee Uzayfa taxaw ci mbooloo mi di jullee mu taxaw parce que naafiq bu dee kenn waru koo jullee su Huzayfa taxawee Omar taxaw su Huzayfa buñ ne am na ku ñuy jullee Huzayfa jël dàllam ñibbi Omar jël dàllam ñibbi ne jullee leen seen néew noonu la ci Omar daan xool moom bu ñu dee rek mu ne wooyu leen Huzayfa su su Huzayfa ñëwee julli mu julli su Huzayfa bañee julli mu bañee julli parce que moom tamit bëggul woon julli naafiq yi mbokk yi sunu borom ne subhanahu wa taala dinaa leen dugal fii darkil asfali minan naar ñoom naafiq yooyu dinaa leen dugal fi gën a tàng ci kalu safara yu mujj yi laa leen di dugal allahu akbar fa asfal tabaqa fi jahannam hiya maawa almunafiqina yawma alqiyama nee na mooy kal bu mujj ci biir jahannam foofu mooy seen tàpp waaye ñoom naafiqi yawma alqiyama yal nañ yàlla musal jëlee nañ ci Omar radiyallahu anhuma mu ne yonent bi ali ibnu Omar radiyallahu anhuma mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na inna asadda annaasi azaban yawma alqiyama almunafiqun wa man kafara min ashaabi almaida wa ala firaun yonent bi nee na ñi gën a metti ëllëg yawma alqiyama mbugal mooy ñii naafiq yi ak ñi weddi histoire maida ak ala firaun da ngay dégg alxuraan ne udxulu ala firawna firawna ak ay mbokkam asadd al azab kon mu ngoog sunu borom ne innal munafiqina fi darakali asfali min an naar ñii ñooy gën a metti ëllëg yowmal xiyaam mbugal fa inni uazibuhu azaban la uazibu ahadan min al alamin ñooy ñooy ñan man kafara min ashabil maida udxulu ala firawna asadd al azab ñooy ñooy ñan ñooy waa kër firawna ak firawna loolu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ci xadiis ibnu omar ne na ñett ñi ëllëg yowmal qiyaam ñooy gën a tar mbugal danañ ci yàlla musal kon naafiq yaa ngoog borom bi nee na bu ma leen dugalee walan tajida lahum nasira duñ fa fekk ku leen di dimbali walan tajida doo fekk lahum ñeel leen ñoom naafeqi ci biir safara nasiran ku leen di dimbali allahu akbar amuñu kenn ku leen di défendre ëllëg yowmal qiyaam naan yàlla baalal ñii nangam ak nangam yàlla ñii déedéet falan tajida lahum nasira kon ku yaakaar ne ëllëg am nga fa ku lay dimbali ba lu la neex nga def lu la neex nga wax yëgal ne yowmal qiyaam yàlla nee na naafeqi amuñu ku leen di dimbali bokk na ci sénégalais yi li tax duñ jaamu yàlla ak li leen tardeel mooy jàpp ëllëg yowmal xiyaam am nañ ñoo xam ne bu yàlla ubbi ubbee safara ñu ñëw ne ko eh yàlla mu ne amu ñu ne ko tëjal tëjal tëjal ñoom diw ñoo ñëw waaw waaw Sénégal moom li ñuy wax ñoom dong ñoo ko ñemee ñoom dong ñoo ko ñemee di ko adressé yàlla nag waaw da ngay jàng da ngay dégg ñu ne yebere wootere salaatul fatiha ɓuri alquran sa jangi yebere wootere salaatul fatiha janngo a naatani aljanna poñ allah wima yo yoɓe ɓe yebere ma yen tukulori yene ko wax de yen tukulori ujunnaji kamil allahu akbar ujunnaji kamil tukulori ñoo ko wax de duma ko firi nag ndax dafa garaaw du ma ko wax ci wolof ndax boobu dafa garaaw la ilaha illallah la ilaha ñu ne dinaa leen firil benn bi ñu ne boo jàngee wirdu boobu ñuy wax ëllëg duggoo aljana na nga poñe yàlla nga ne ko fay ma li ma wirdoon poñe yàlla nit ñeme na poñe yàlla non kufri yi ñuy wax ci dëkk bii te ñoo ñoo gën a ndaw ah ñooñu ñoo gën a ndaw ci kufri yi ñuy wax moo tax man événement yi bu amee du ma déglu rajo gars yi dañ naan ne naan oustaz da nga war a déglu ndax ne du ma ko déglu ndax sama xol moo ma ko mënul may mënuma ko ndax am na wax yoo xam ne journée bi yëpp boo ko dégloo sa journée day yàqu du ma ko déglu wax yoo xam ne teguñu ko fenn ay nit di ko wax jëmale ko ci yàlla wala jëmale ko ci yonent bi te lépp nekk ay fenn dara du ci dëgg amul benn texte bu ko dëggal ci islam ci alquran ci sunna yonent loo xam ne yonent ñemewu ko woon def sahaaba yi ñemewuñ ko woon wax nga gis cundung doomu aadama boo xam ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun waaw xoolal li ñuy wax abdou xadir jaylaani dafa fekk taalibeem dee mu ne xaar leen mu ma ñëw mu yéeg dégg naa mu naaw koji ji koji ji malakal mawti mu fekk ko septième asamaan mu poñe ko dóor ko kurpañ bët bi toj pañe ru yi wadd pañe ru yi ñi mu rayoon yëpp seen ruu yi wadd ñi deewoon ñëpp dekki mu wàccaat fekk taalibe bi jóg taxaw mu ne waay muy jël sama taalibe te tàgguwuma loolu wax jooju ni mu garaawee mbokk yi xoolal wax jooju ni mu garaawee ah loolu ngeen di dégg ci ñeneen ñi ku nekk di jay sa waay waaw nga dégg sa gaay ne sayku tawaama walde bodri waaw El Hadji Omar ñu ne fekke na Badr Badr fan la woon Sénégal ah xoola Jibril dessiné Jibril kan moo mës a gis Jibril ba koy dessiné mu yenu ay jàkk fii oh Sénégal Jibril kan moo ko mës a gis ba koy dessiné kan ma ki dessiné Jibril mu ne kii mooy Jibril kooku dañ ko war a woy ñu ne ko yow ndax mës nga gis Jibril ba nga koy dessiné xoola yox yooyu xoola xoola yooyu xoola Adama moom Adama da ngay dégg ñu ne am na ñoo xam ne bokkuñ ci Adama ñoom bokkuñ ci Adama bii ban Adama lañ bokk yàlla ne kullukum min Adama kullukum min Adama huwa allazi xalaqakum min nafsin wahida moom bind ci benn bakkan wa basta minhuma rijalan kasiran wa nisaa wa aad kullukum min adama wa adama min turab waaw yan nii du diine mais comme nit ñi jànguñ comme nit ñi dañ leen a réeral comme nit ñi nanguwuñu góorgóorlu nanguwuñu génn ci bokkaale jëm ci jaamu yàlla moo tax nit ñi nii rek la ñuy mel waaye ku fi yaakaar ne ëllëg yowmal xiyaam am nga fi ku fa taxaw naan yàlla bil bàyyil ñii wallahi da ngay nax sa bopp sayyidina muhammad alayhi salatu salaam bi ko yàlla yónnee dafa taxaw ca xeeru safa daal di yuxu waa saba ñëpp ñëw mu ne ya muy wax ak famille yi ya quraysh ya abbas di wax nit ñi ba caag mu geestu rek gis doomam mu ne ko ya fatimatu bintu muhammadin salni min mali ma shi'ti fa inni la ugni anki min allahi shay yawma alqiyama fatima sama alal de loo soxla laajal ma jox la boo jaamul ëllëg yawmal qiyaam mënulu ma la dara jàngeen nuux nuux jàkkaarloog doomam nuux ulul azmi min ar-rusul seyxul mursalin nuux awwalu ulul azmi min ar-rusul nuux jàkkaarloog doomam ne ko yaa ibni yaa bunayya irkab maana yow sama doom yéegal ànd ak ñun lu ko doom ji wax saawi ila jabalin yaasimuni min al ma papa damay dem yëg ci montagne be montagne bi dina ma aar ci ndox mi nuux ne ko laa aasimal yawma min amrillah maa ngi la yëgal ne tey kenn du mucc ci mbirum yàlla ñëwal mu ne ko ñëwuma fi ñuy wax ñoom ñaar ak yàlla mu ne wa xaala baynahumal al mawj allahu akbar vague géej gi dox seen diggante nu xam ne doom ji day alku nu xam ne doom ji safara la jëm mu bàyyi doom ji léegi ma nga ca yàlla yow sama boroom inna ibni min ahli ay yàlla ma doom de ci man la bokk te daa nar a dee de xool ci saase la ko yàlla ne innahu laysa min ahlik du sa bokkul ci yow de te sax ah innahu amalun gayru saalih moom baaxul yàlla yemul ci loolu de maa ngi lay yëgal ni fala tasal nii bul ma ñaanati bul waxati maa lay salaka bi loo amul xam-xam kii di bandi nga bëgg ma baal ko xool yàlla loolu la wax noonu léegi ñun fii nga gis waa ji dajale deux mille deux cent dix bandi taalibe yëpp ay bandi lañ mu ne ñëpp danañ dugg àjjana te nu moom benn doom lay indi woon te ulul azmi min ar-rusul kii indi taalibe yoo xam ne deux cent dix kenn du ci julli kenn mokkalu ci Fatiha kenn mus cee julli kenn mus cee woor dama ne na di dugg àjjana nañ nax suñu bopp ku nax sa bopp nag ku tëdd ci sa kawlal di saw naan yaa ngi wan ak ba ba nga yeewu ba yeewoo di nga xam ne nekkoo woon ci salle de bain waaw mooy kuy nax nit ñi di jaamu yàlla nga nekk ci caaxaan ba pare yaakaar aljanna walan tajida lahu nasir suñu borom nee na képp ku ma jaamul amoo ëllëg ku lay dimbali yowmal xiyaam gis nga suñu borom ku baax la xoola ñii li garaaw li ñuy def yépp borom bi ndeysaan tàllal na leen ay loxo ne dinaa leen baal bu ñu tuubee illa allazina ba mu des ñi nga xam ne taabu tuub nañ ndeysaan jégglu nañ yàlla génn nañ ci naafeq génn nañ bàyyi allié ak ay yéeféer waaye yemuñ ci tuub la ñu yàqoon dañ koo defar wa aslahu wa aslahu dañoo yéwénal dañoo yàqoon jiite woon mbooloo moo xam ne mbooloo mi kenn du julli mbooloo mi kenn du woor mbooloo mi kenn du jaamu yàlla ah ñu ne ñu di yàlla waa ne gaa yi ñun kat dañ doon fo waaw acca bismillah jëli leen téere yi gaa yi jàkka ja gaa yi ah wa aslahu tuub rek day gis koo xam ne waa yow eh, damaa tuub gis ngeen tuubu Sénégal da ngay gis benn paa boo xam ne da doon fecc pàccanga wala muy fecc lan merengue ancien fecc yooyu mu toog ci télé bi animateurs yi tegal ko ko léegi màggee ne am na quatre-vingt-dix ans mu toog ba caag rek daal di rek jóg daal di xaaral ma fàttaliku démb kii tuubul daa mënatul tuubul gis nga tuub mooy lan bala moo xam ne dañoo ne boo tuubee yére bi nga moye woon yàlla yére boobu sax dootoo ko soloti pantalon bi nga soloon baali 24 nga yëg si ñu ne la 24 daa araam baaxul chemise boobu ak pantalon boobu daal yooyu araamal nga leen ndax tuub bi photo ya da nga koy xotti waaye nga ni tuub nga ba pare nga def ci ngandum poster teg ku ñëw nga ne ko ay gaan xoolal cey waaye temps yooyu quoi gis nga waaye temps yooyu dama doon joos quoi dama doon joos gis nga yére bi laa soloon quoi yow tuuboo parce que yaa ngi fent nettali bàkkaar bi nga doon def loolu da ngay fexe bu ko kenn gisati fekkee ay poster la ay photo la ay nangam la yëpp da nga koy xotti sànni ko kenn bu mu ko cegati bët waaye tuub boo xam ne da ngaa mënatul hmm? loolu du tuub soo tuubee li nga yàqoon da nga koy defaraat wa aslahu yemuñ ci de wa atasamu billah ñu ngoyaat ci yàlla di ngeen tuub ba pare jàpp ci yàlla wa axlasu diinahum ñu sellal seen diine lillah ñeel yàlla fa ulaayka ñii yemuñ ci de ba pare ñu dem maal muminina bokk ji ci way gëm yàlla yi génn ca mbooloo ma ñu nekkoon ñu dem ànd ak maal muminin su boobaa yàlla nangu tuub bi ndiki xool leen sarti tuub yi nu mu garaawee bu ñu tuubee lu ñuy def wa aslahu wa atasamu billah wa axlasu diinahum ba pare fa ulaayka ma al muminin ñu dem bokk ji ci way gëm yàlla yi ñeent sart yi bu ñu ko defee yàlla nee na ma nangu seen tuub bu ñu ko deful nanguwuma seen tuub suñ ko defee lan la leen yàlla defal wa sawfa yu'ti llahu almuminina ajran azima yàlla yàlla waxoon ci baat ba ci kaw yaa ayyuha allazina amanu yéen ñi gëm gis nga mu indi waat baat bi fii wa sawfa yu'ti llahu almuminin ñooñu gëm nga xam ne ñoo bàyyi lii lépp ëllëg yawmal qiyaam yàlla dina leen jox lan ajran azima fay bu rëy ba léegi ci iman bi la yàlla di waxee ak ñoom wa sawfa xal seet na yu'tillaahu yàlla fay jox almuminina way gëm ña ñamu woowoon ne leen yaa yàlla zina amanu lan la leen di jox ajaran fay aziman bu rëy yàlla nag su ne damay fay nit fay bu rëy lan ngeen yaakaar la lan lay toll su Macky Sall waxoon kii dinaa ko neexal ngan di neexal gars yi sa xarit li ñuy wax sa waa kër li ñuy wax sa mbokk yi lu ñuy wax yemul ci dinaa ko neexal mu ne kii naa ko neexal ngandi maami neexal yooyu xam naa ne moom ragal naa boo amoon ay mbokk yu tukki sax tem ñu ñibbisi waaw ne ne neen tekki ngeen seen famille rëcc nañ waaw kon ku yàlla ne ëllëg yow ma xiyaam dinaa ko fay fay bu rëy yàlla yemul ci rek dinaa ko fay waaye mu ne ajran ba pare mu ne aziman lu ngeen yaakaar lu muy toll moo tax ki mujjee dugg aljanna ki mujjee dugg mujjee dugg nga xam ne dafa ñëw fekk kër yi jeex malaaka bi di ko yóbbu ne ko kër yi aljanna yi de dañoo jeex waaye yàlla may na la benn kër kër gaa ngi nii kër gi ëpp na fukki château yi buur boo ko boolee kër gi ëpp na loolu waa ji bi mu gisee sato bi mu tiit mu ne lii malaaka bi ne ko yàlla may na la kër gu toll ni àdduna kër gu toll ni àdduna ban buur moo ko am ah yàlla rek moo ko am waa jooju malaaka yi bi ñu jàppee ci loxoom di ko dugal aljanna mu ne tëll ci bunt bi dafa sujjóot malaaka yi ne ko lan la mu ne damaa gis yàlla ñu ne anamu mu ne mu ngi nii ñu ne ko lii fleur la fleur aljanna la allahu akbar wala waa ji gis fleur sujjóot mu dugg ci biir saal bi sujjóot malaaka bi ne ko lan la mu ne dama gis yàlla mu ne ko lan la mu ne kii mu ne kii urul ay ni la kii sa soxna la daf lay teeru si moo tax yàlla wax ci alquran wa ida raayta samma raayta naiman wa mulkan allahu akbar yal nañu yàlla yóbbu aljana fiha ma la aynun raat wala uznun samiat wala xatara qalbi albashar aljanna la fa nekk nit musta teg bëtam ci lu toll noonu ci rafetaay nopp musta dégg ci neexaay lu mel noonu xol musul xalaat lu mel noonu ci neexaay aljanna amul duus fii kër guñ defar am na duus kër président kër xalifa kër imam kër oustaz kër roi kër samba kër demba kër moodu kër paate kër ñëpp am duus wala kër kay ñii amuñu kàttan président kay bu fooroon këram bu mu am duus loolu ngand la maam dus loolu yunus di wax ñaama lacciri haa ko haa ngay naa mbiyaa ko mbaaloy daa ko arsi am na yoo xam ne ne dañuy fanaani ars duñu fanaan ci kaw suuf mu ne nga lekk cere mbuum te cere mbuum dafa am tiga dege te tiga dege xam ngeen ko ko lekk sa biir nu muy def ba pare nga ne da ngay dem ars te ars amul dus te tiga dege nga réere wax na dëgg de te xam nga ne ars amul duus wax na dëgg ndeysaan aljanna yi mbokk yal nañ fa yàlla yóbbu boo yi nekk aljanna rek boo yi mbindaan yi yàlla nee na wa iza ra'aytahum hasibtahum lu'lu am mansuura mbindaan yi rek dañoo rafet ba mel noonu kon patron yi ni ñu war a mel ah mbindaan bi bu rafetee ba mel ne or bu ñu àmbale jama kon patron moom moom mi liggéey patron moom nan la war a rafete yeneen bi nee na urul ay ni jigéen ña fa nekk kenn ci ñoom bu dugaloon loxoom ci biir géej gi baaraamam mu yëngal ko géej gi day saf suukar kenn ci ñoom ci rafet bu mu rafet su jëkkëram doon toilette ci lex bi ngay xool ngay gis sa bopp ngay peñe sa sikim boo bëggee peñe sikim kumba argaay rek mu ñëw nga jël sa peñe ngay peñew nga gis sa bopp ci lex bi allahu akbar ndax nu mu leere urul ay ajana neex na de yàlla préparé na ko de waaye pour ñan góorgóorlu ndeke kon kay foofu jar naa góorgóorlu su fekkee xale yu jigéen yi ngay rey sa bopp ay sama boy bi sërte mais gaay gaay jaral na ma toog ci furna jaral na ma toog ci signeel jaral na ma jaay jàkka ji turul ay nii nag yowmal xiyaam fekkee booy yi ñoo tax ngay rey sa bopp booy yi nekk yowmal xiyaam nag allahu akbar kenn rek kenn soo boole woon jigéen ñi ci àddina bi yëpp mënuñu egg taaru ko ba pare yàlla neen dama leen denc huurun maqsuratun fil xiyaam leen denc ah yal nañ fa yàlla yóbbu sunu borom ne maa yafalu llahu bi azabikum waaye yéen lu leen yàlla di doyee mbugal yàlla lu mu leen di doyee mbugal da ngeen di jaamu yàlla kon yàlla lu mu leen di doyee di leen mbugal di leen sonal di leen fitnaal moo tax ki perte mooy ki yaakaar ne jaamu yàlla bi mbugal la dam ñoom jugu julli o sottoto ay sot ne daf jaamu yàlla bi mbugal même koor rek nga gis waa ji woor di deedeelu ah yeewu fajar am na ñoo xam ne pour nga yee leen fajar la ilaha illallah am ñoo xam ne pour nga yee leen fajar sax foog nga jëli ay ndënd ci seen nopp yi dafa mel ne jaamu yàlla ci ñoom mbugal la yàlla nee na ma yafalu llahu bi azabikum lan la yàlla di doyee di leen mbugal in shakartum su ngeen ko sante wa amantum ngeen gëm ko lan la leen doye mbugal su ngeen ko gëmee ngeen sant ko xéew li mu leen defal moo leen bind ngeen nekk ay nit defu leen ay rabu àll defu leen ay njaay àll ba pare mu def leen ay jullit wàcce leen ci kaw suuf si def leen ngeen silwise ah di lekke seen loxo di doxe seen tànk am na ñoo xam ne lan la ñuy lekke ndeysaan benn cheikh day nettali nee na dafa nekk ci kë- Médine ci jàkk yonent bi alayhi salaatu wasalaam Abu Talha la cheikh bi tudd bi ma ajee ndeysaan dem naa ba toog moom mu may ma téere yu bëri mu ne ma charte charte bi tax ma lay may téere yi mooy nga jàng téere yi boo ko jàngul ëllëg yowmal xiyaam maag yow ci kanamu yàlla maag benn oustaz bu tuddoon Umar Sall ak docteur Ahmed Lo bu ndaw ak beneen mbokk ñoo àndoon ndeysaan ci biir téere yooyu muy ma may am na benn téere boo xam ne nee na dafa nekk ci biir jàkk Médine mu gis kuy julli te amul ñaari loxo waa jaa ngi julli ñaari loxo yi dañoo dagg nee na mënatul julli moom keroog ndax day xalaat waa ji waaw kii nu muy lekk nu muy solo ku koy solal daal kii buy sangu nu muy sangoo kii bu demee toilette kan moo koy setal nee na ay question yoo xam ne daal du jeex ñëw ci boppam mu ne bu ma paree ma wax ak waa ji nee na mu pare xamul lu mu doon def rek waa ji dem mu wër waa ji jàkk jëpp gis ko nee na une semaine mu koy wër ci biir jumaa ji saa yu julli see su jullee ba pare day wër bunt yi ndax mu gis waa ji mu ne benn bis rek mu gis ko mu ñëw dend ak moom ba ñu pare rek mu ne mu am occasion wax ak moom ndeysaan foo dëkk mu wax ko Pakistan mu ne ko waaw yow la moo la indil li mu ne ko gis nga sama ñaari loxo yu dagg yi moom moo tax ma dellu gëm yàlla nekk jullit maanaam sama ñaari loxo yi sabab yi moo tax ma tuub ma dellusiwaat ma nekk jullit instant yi mokkal naa sax alquran waa ji di ko wax dund bi muy dund cheikh bi li mu foogoon ndeke kii nee na moom mu ngi ci ay xéewal nee na léegi la gën a kontaan bi mu amee loxo ndax bi mu amee loxo saay saay la woon bandi la woon loxo yi dagg yi moo ko tuubloo indi ko ci diini ji gis nga imagine mbokk yi kuy dund amoo ñaari loxo yéen a ngi gis ci facebook bi ndaw si nga xam ne amul ñaari loxo day kuus doomam ak ñaari tànk yi gis ngeen ko gis nga ko di ko solal yére di ko sang di dawale oto bi ñaari tànk yi di togge ñaari tànk di ubbee buntu biroom ñaari tànk di manipuler ordinateur bi ak tànk yi te amul loxo allahu akbar gis nga yàlla sunu borom subhanahu wa taala xoole yow nag nga am sa ñaari loxo am na ko xam ne gémmiñ lay lekk doo lekkee woo gémmiñ ah yaa ngi dox ak say tànk am na koo xam ne day diriiku jamono yi ñu daan def conférence gore ci nawet bu ñu wàccee salu bi mu commencé taw ndeysaan amoon na benn mbokk bu ñu daan àndal da daan raam day toilette ba pare di raam ci bax bax bi riib tax soo ko xoolee sa yaram day daw xoola kii gënoo ko mu ngi gëm yàlla comme yow ànd ak yow ci programme mu diine yi yaa ngi tuwaale di dox ak say daal moom muy raam ak ay yéreem ci suuf waaye mu ko gisoon sama imaan bi day yokk wala kooku kon ñun war nañu sant yàlla wa in shakartum war nañu sant yàlla yàlla daf noo defal ay xiiwa yu dul jeex waaye doomu aadama yi léegi duñu sant yàlla wa qalilum min ibadiya waaye wa amantum war nañ ko gëm moom yàlla tabaraka wa taala mu ne wa kaana allahu shakiran alima yàlla sax cantaakoon la da ngay jàng ci alquran yàlla di sant ay yonent wala yàlla di sant ay nit yu ko defal dara waaw bu fekkee yàlla mooy sant ab jaamam ndax jaam bi moom war na sant yàlla kon jaam bi moo ci gën a yey kon sunu dars tey mu ngi jeexee ci wa kaana allahu shakiran alima sunu borom jalla jalaaluhu wa aza kamaaluhu moom ci boppam day sant cantaakoon la waaye alim waaye ñi muy sant xam na leen de du sant même porte ki alxuraan jàng leen yàlla sant na yonent yi sant gaañu baax ñi sant ñi ko taxawal ci diineem kon ñu nit nañ góorgóorlu ba ñu bokk ci ñooñu nga xam ne dañuy am ngërëmal yàlla ak cantam mbokk yi loolu mooy darsa tey asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu amin wa iyaakum